malaktu bi rabbil mukilal mawj wal yamaa ana ñi bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ma jilali ansa adan fulkikal xammi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya habiballah يا خير خلق الله إمام البراء يا سيد الكونين كسوفو ينتي بدفلني نمكال برمبري ورمبتي مدينة نلاو وإنك لعلى خلق نسيم ملكت بربي مغجر الموج واليم مجلسي أنسى أزن فلقك الحم مرامي وحاجاتي لربي توازن بأمن وسكر وولي كان في سكري منادي كوني عبد ربي خديم من خطبه بالسكر والبدعم مزاياك يا كلي لدى الكل خجلت ولكنها والشجر والنجم مقامات خير الخلق عن خير ربهم مقامات خير الخلق عن خير ربهم مخيبة الفل تقرب عن سورة النجم محمد المختار لا خلق باسمه عليه السلام من لو لم يكن محمد الموفو ماء ومانع وبالاسم مسؤول مسؤول عن الوزن مجيب مجاب مرتدى لكل داء مبيع رموس الى الغرب والعجم وجود جلا عنا بجنا مخلل ملك ومصوم من الناس والوزن مدينة علم مرتجل منة لنا جريء منجر من سلوب ومن سلب مع الله عني بالنبي كل فاسد وجدت بعبدا خديما بلا خدم من الله رب الجقي صلاته بتسليمي للمستعى موكل اليوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قول لي مولين قلبي waaye góor ñi moo leen gën di góor. jiit ñi moo leen di gee suma yaboo naan génn gee rek am. te mooy Seyduna Muhammad moom de jëwul ngerneel te suñu yaakaar xëcc li jirim ala ki noon ya. yërëb ji baaya day teral mag. day teral ndaw. day teral dëkkandoo nañu bëgg Seyduna Muhammad man de maa ngi ci baba nu may jaale. ay Mustafa soo ma jàllewul kenn du ma jaale Mustafa kay jàlle ma Sidna Muhammad tuddu turam may na ma xel tuddu turam may na ma xol siru turam may na ma loolu duma ko xela ko xam kër daanaan ah, waaw ku lay jaay toog dégg loolu na sam xel dem ci yaasin xaymam idaar wala ne ko sortu yaasin kooku mooy Seydina Muhammad bàyyi ba sa baara maami dana Cheikh Mbacke góor ga demoon Gabon jaari maa yomba jaari ñi ba wali tëj ko tumme daw me Bamba nee na Muhammadun misala wala yaate fi maamada wa abadan laa yaati sabata an rabbana waxatal baat bi Muhammadul misalo ana soppay rasulillahi muhammadun misaaluhu lam yaati muhammadun misaaluhu lam yaati bàyyi basak baara maama dana Cheikh Mbacke katawloo Moustapha catloo Murtada maam Sëriñ Mountakha Bachir Mbacke muhammadun misaaluhu lam yaati amul ku ñuy misaal ak Seydina Muhammad lam yaati dootul ñëw fii maamada ca àddina waa badal laa yaati li wees ak lu ñëw laa yaati tam ku am mel ni rasulillahi rabbana محمد مثاله لم يأتي محمد مثاله لم يأتي محمد مثاله لم يأتي محمد مثاله لم يأتي محمد مثاله لم يأتي الله نور السماوات الأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح للمصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب وبركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولونه تقصص نار نور إلى الله ما شاء الله Ah. baayu alaaji Fallu Mbakke nee na lu wax muhammadun misaaloo lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati sabata ana rabbana lam yuridi misaaloo fa misloo laa yaridi loo siyaadatul gannaaw daal yaakaar am ngeen mbégte. Mm-hmm. ah yaakaar naa yaakaar naa am waaye soxna ay dalay wooyal alaaji Fall bàyyi mbeen. ku sopp Serigne Fallou Mbacké. dafa nii ñu màggal bàyyi Karim. du xotti saatir. du tas yaakaar. du daw ku koy laaj. ku laaj bu may alaaji Fallou xandiwu la. Mm-hmm. loolu dem na. fa tegoon nga xamante ne te doon tudd abadan. ku sopp Serigne Fallou ana soppay Serigne Fallou ku sopp Serigne Fallou xeewal war la du la alaaji Fallou bàyyi mbeen lawlaaka ay waa kër ndaanaan yéenay soppay alaaji Fallou bàyyi mbeen lawlaaka Cheikh Fallou xeewali walwale kon bu ngeen walwalee tee na ngeen way Cheikhouna Fadlala fadlun asimun Serigne Faris Fatilun Mbacke Moussa Bella kii moo njëkk samay wasiya Serigne Fallou na maay Sénégal. waaw waaw ñu ne ko Serigne Fallou lu tax ñu ne yaay Sénégal. wax ko ci kaw mu ne Pambaay sama mbaay. waaw waaw ay si jaaji sama nijaay si arab lo Kumba Caam Mbacke Penda bëgguma Penda Bante Penda Ali Bey waaw waaw Malick sama maam waaw waaw is arada allahu nashatana teg ma teg ma bañ a yëngal ah, ah, is ah. arada allahu nashatana wayal sa way te bul ma yëngal masha allah taggal yërit te bul ma yëngal si daaj Malick nee na lu wax yaa xaida albahri للذات أندية أصداف بها درة الأعلى من الجلم يوم بقى حم رسول الله كما أخلاق دم كوكو دم كوكو دم مكيون محمد يا قائد الباري كنت في بين الدور وجدت وقتين وخلق كان ويمكن محمد للذات أندية أصداف بها درة الأعلى من الجلم محمد léppi léppi léppi rasulillahi Cheikh Sidi Hadj Malick mooy ko xam. Muhammadul. Muhammadul. Nuuru. Nuuru. Abdallahi. Abdallahi. Shaybatan. Haashimin. wa Abdul Manafi. Maxusayni. Kiraam. Aburata. Kaabil. fanaksibu xanja sama Maodo maam Maodo nee la yu góor yaa ngi noonu ma ñëw ma ñëw nag ci maam yu jigéen ñi waxun na fatimatun salma wa atika xubbee wa fatima hindun waxun na simmi wa xiyatun bintu sheybanin wa maawetun kulooyu salma wundalam tëlimi waxun na jëndalatun la tan saxatikatun baratun bintu saxdi zil salma layla rababa sawdatun muhamadun mahdan wa ay ay googu la ci waa ya ay ay أبيات تغتنمي أسري نيل ما نلنا من أنوار من أنوار من نوره نيل ما نلنا من أنوار كالير كالير غوغو لير غوغو ليالا نياك تي بوبام muy Seydina Muhammad mu amul lu mu bind wa innahu is arada allahu nash atana abana min nuurihi nuural nabil alami ba yàlla ba yàlla wasalliyan ya ilahi wa yusiyan abadan أن محمدا مختار في الختام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله kontaan nañ